léegi ba léegi rek ci le 19 mars bi deuxième grand combat bi moo ngi nii comme ni leen ko waxee sànq war na ci diggante Kaw Gourdin ak ki nga xamante ne moom mooy ndigal ñoom ñaar nag yaakaar naa ne bu ñu fi mujjee ku ci nekk dañoo yëkkati sa loxo sañ mbokk bégee dimanche le 19 mars amateur di leen xaaraat ci bëre bu rëy ci xeex bu metti ci mobilisation bu doyo doyo doyo doyo waar dama comme ni ñu ko defee woon noonu lañ ko defee waat rek euh, président Sidi Diakhaté mu nuyoo waa àdduna ah. waaw lamin maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal di nuyu surtout nag euh, le président Bira Sène moom mi nga xam ni moo yore làmb ji di gërëm di sant di sant son excellence le président de la république monsieur Macky Sall ak soxnaam mais surtout di nuyu suma xarit monsieur le ministre des sports ba Diattara di gërëm di santaat kii nga xam ni barki démb rek la ñu jógee ci këram muy monsieur Maguette Wade moom mi nga xam Maguette Sène moom mi nga xam ni moom mooy DG du COUD donc ñu koy gërëm di ko sant bu baax monsieur Maguette Sène ba pare mu nekkaat mali Malicounda ku nekk gis ñu nag moom rek li nga xam ne def nañ ko démb Sénégal gépp kontaan ñuy waajal aussi drapeau ki nga xam ne mooy monsieur Oumar Youm war koo dem def ji fële ci Caajaay donc di nuyu suñu xarit monsieur le ministre Cheikh Kanté di waajal drapeau di di di di waajal tey jii drapeau Yves Lamine mais tey jii ma leen di xamal daal li ñu indi fii mooy dimanche 19 mars bu ci yàlla andee ci diggante kii mooy deuxième grand combat bi diggante kaaw gourdin borom gourdin bu rëy bi wante am naa yaakaar ci ni gourdin nag bala muy jóg day am ndigal bu dee dajeeg ndigal nag xaw ma nag ndax ndigal dina ko jox wala déet kon nag ngeen war a xam ni combat bii lamin komba bu am solo ta du yomb bu Pape mbay bu ñu paree Pape Mbaye bu r war ce topp moom ak euh, ki nga xam ni moom mooy turbo plein bu Tivaouane waaw ba loolu ay combat yu garaaw laa tëgg nii donc vraiment après Clédor donc moom mooy yor a ak ceeb junior bu nekk kilomètre cinquante borom yàpp rafet bi moom ku romb rek mën nga faa jaar di jën yàpp donc du ma ci sori Lamine lépp mi ngi nii ci sa loxo damay bàyyi nga waxtaan ak ñii parce que fi mu nekk nii defe naa ni ça a vraiment tiré en longueur. waaw yaram bi ngi sant yàlla bu baax julli si bi sant suñu waajur di di nuyu sama mbës bi ma àndal di nuyu waa Guédiawaye yëpp di nuyu sama patron Balla Gaye 2 di nuyu DG Kandji maa ngi koy nuyu bu baax a baax. di sant waajur yi tamit bu baax. jaajëf mm. waaw. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ Abib si bu ma Abdou Aziz da baax di leen nuyu yéen presse bi ñu fi taxaw yëpp di bëggee ndigal di nuyu suñu père mooy di Diakhaté di nuyu waa Dalifor yëpp rawatina ki nga xamante ne moom laa àndal muy sama frère maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama manager Assise di nuyu Père Tombe bu baax a baax a baax. Mhm. Tombe Père Tombe waaw dafa leer. moo lay jox bi baax. yàgg na. te géej waay dafa am loo fa loo fa loo fa jot a def de tey na nga ndigal mi nga xamante ne bu géej waay jaaxlee rek mu fomb seen dérango yi. Mhm. ndax da delloo mbaatu ci ndax la. waaw yaakaar naa wax waxaat du bëri wax yaakaar naa yàgg naa ko wax. géejawaay pareeguma fa dama fay dugaat ci kàttanu yàlla. boo paree ci ndigal mi. incha allahu rabbi dama fay dugaat. ndigal xare bi jeexagul. waaw ay xalaatam la wax rek bu soobee yàlla tey mujj a dugg géejawaay samay kaf nag béy na sama jàmm béy na nii mais wala xam na ne si fii la yem. billaahi wallaahi bu duggee fii dimanche 19 mars ma duma ko daan ko kii duma moroomam. c'est que ñi mu daan géejawaay sax ñoo ko mën dañoo juum rek ay xale lañ mu magu leen rek. mais mag ni moom lay bëreel te waxantuuma sax bëreentuma foowantuuma sama kaf nag bëy na trop mais combat bu ma bëgg laa jël te incha allah le naa ko wane. moom da ngeen a génnagul. non loolu xalaatam la tey la koy mujjee dugg man maa la ko wax man maay géewaay maay tëj maay tëj képp ku leen sonal ma lijjanti ko ñëw toogal fi ma toog góor gi su roq baa ngi nii. te di nga lijjanti kii. wallaahi Asim du yàgg sax kii yëg nga neex a bëreel. lu parce que te ëpp ñu ko. waaw mais xel lay bëree. du doole du bëre xel léegi li ci mooy que ni na dëggal boppam bu jour ba ni ko sëñ Sidi mi bëggee ba dagg yi tamit bàyyi mbëri Cees yëpp ñëw fii jël ñu ñu hmm. fet ko si du isaat bi si bëri si fulla ak fay ak jom di ñaan suñu boo mooy ñu ndam yow nga tekkatu xel nga Lamine yaakaar naa lu mu wax nii am na ñu ko waxoon n'est-ce mooy maanaam man na laay bëree te nekkul moom moom may wax nu moo bëree am na li nga xamante ne jarul ñu ciy wax di ci waxaat kaw gu ree la moom mag la te ci kàttanu yàlla le 19 gourdin bi dina ko dal ma tëbal ko comme nu ma def ay rakam nee naa dama fay dugg dugaat fa te pareeguma foofu sax nu fa waajee def. waajal booy ñaan. ni ko raw laa fay def. ci kàttanu yàlla yow kon teg nga sa ci nu fonde instant bi. non loolu dama ko yàgg mbapat laa fa commencé foofu. laa ilaaha illallaah. mbana dem non yooyu du ma sori. ku ñëw jël sa kaas. lamb adversaire yi tombé nga nekk bërëb sàngam rek fii ku nekk fa nga daan. soo fa limee la nga daan mu bëri mais ñàkk vision ak ñàkk jëm fu sori mooy tax nga ay fii laay def lii fii man làmb fépp fu adversaire rek dama koy ndax man ñëpp lay bëri man Kaw Gourdin yàlla xam na ne xam ma sax fu mu dëkk damay dégg fii laa soo de xam ne Dalifort a dëkk kon toppatoo ma fu mu dëkk du ma bëri lu bëri ndax Dalifort bëriwul ay mbër kon yooyu amul important say adversaire dafa tombante nga nekk géej waaye nga daan fa ñaari nit ci sa ngay allah te loolu ma wax nii mi ngi fi après combat bi dina ñëw wallaay kii tey lay mujjee dugg géej waaye pour daan ji fan nga teg loolu da ëpp doole maa ko mën li ngeen bëgg maa ko mën maa ko ëpp doole maa ko dàq bëre. waaw Lamine waaw erreur la may def de parce que xam nga rek kii bu taxee fii gin ma nekk paa ba pare naan ma moo ma doole daa fekk dugubuñu fii. fii fii muy fii muy. Ah, nañ dem léegi ma dal. nañ dem léegi ma may ko dal. nañ dem léegi ma dal. non duñ ko maye yéen koy waxante leen lu ngi leen neex woo leen ku leen neex mais kenn du ko fi maye moom ñaan leen lool rek teel na di wax ñuy wax ko léegi amul maye de ñu contact ma daan ko ba tey mais amul maye de tey si buru mbaar daa si buru ah, di ko ñaanal yàlla nag balaa le 19 moom tan ñëwee comme nu mu doon ñëwee waaw si buru la loolu da koy def ak nit ku jëm fenn quoi mais genre bu bon gi ñoom dañ daa doon jot daa soxlawu leen man nit jullit laa nit laa ah, damay feebar non sa si damay feebar parce que damaa jóge si ay combat yu sama patron am combat ma ko doon jàppale fatigué si yaa ngi dégg loolu jotawuta da signature contrat dama ne la buñ simee ko léegi nii mu ma daal la man maa la ko ne ñooy suñu soppe ah ak képp kuy bëggee Kaw Gourdin ak fépp foo mën a nekk lamb ji seen lamb la. Ah. waa Géejawaay. parce que man dama fa am ay mbokk dama fa am famille. dama fa am lépp Lamine nekkul c'est woo waa Géejawaay. dama fa am ay mbokk am fa ay famille. wallaay Azim du caaxaan comme nu mu ko waxee. comme nu mu ko waxee. man ndigal fii ndigal ah, non maanaam xaw ma fu mu dëkk quoi ah, xaw ma fu mu dëkk ah, si amay dégg parce que yooyu noonu yëpp yooyu yëpp solo lamb ji la 19 la waaw noonu la demee kon xam nga ni am nga am naa kon na fu ndigal dëkk parce que yoonu na nit dem pour pour mu tibb tànku ndigal kon nag xam na ko yow it ki nga yabal barki démb moom gis na ko xam na ko de ma mayaag sama tànk fii léegi bala ñoo dem mu yóbbaale bu soxlaa suñu adresse waa wallahi billahi su combat laa su jëlee sama numéro su ma vocalé ma rappel suñu waa kër yëpp seen tur yi ak sama tur dëgg ak sama yaay ak ñaata at la am sans poids lépp ma parce que yooyu yooyu sëñ bi làmb ji entraînement mooy daan mbër ak mën a bëre ak fulla ak fayda ak jom yooyu noonu détail ay huitième position la xam nga naa bëgg fekkee ko teg na dem defi leneen làmb ji. Ah. entraînement bu wóor mooy maye fii ndam. le 19 kan mooy gën a maa koy gën a lépp maa koy def maay kii nag mooy la 19 parce que instant bii nii instant ah, ma bàyyi fan DG dafa jël ay décision yi mu fermé parce que dafa am wax ju am moom du ma ko balaame parce que bëgg na combat bëggoon naa ko wax dëgg yàlla ñu am ñu jaar suuf bëgg a yàq bëgg a ay wax ju ay kii du andi lii bala 19 Kanji ma deey ba 19 yàlla baax na Moustapha Kanji mooy DGM moo ma deey nee na ma ndigal dina yëngal jamono. waaw loolu yëpp dañ ko koy ñaanal parce que Père Sidi mérito na lu raw loolu képp ku mu mënti tëgg da ko war a andi la nga xam ne mooy satisfaire bi ci estade bi ñaan naa yàlla kii bu ma koy daan le 19 mu andi mbooloo feesal estade bi ma daan ko preuve daan nga bëgg pour nga xamante ne duñ naan tu tungu ne du teew muy nataal ndigal mii nii wallahi azim lu ma lay du caaxaan de lu ma lay du caaxaan ndigal mii bu arbitre sifflé yaa lamb du yàgg na taxaw fal man dama di magum jëmm di kilifa yow sama bopp yow sama kër man kenn du ma wax ni ngay bëree mais dama ne la ki lay seetaan seet bi leerul dama ne mën leen koy wax yàlla xamee ñuy seet seen seet du leen si bàyyi xel da si ñu a seet ñu si wala ñu di non man maay li saxaa sama bopp man sëriñ laa damay ñaan. sëriñ barki yonentu yàlla Muhammad maay seetaan sama bopp waaw. seet nga ko yàgg na. loo gën daan. noo ko daane. na billaahi dinaa la ko wax. la ko on naa la ko vocal. d' accord amul benn problème mais kontaan nañ ci yéen bu baax a baax ah di kontaan ci kañ bi nga xamante ne tey dugal na loxoom ci combat bi di ko wax nag ni muy jëndalee. ndigal bu la na ko jëndalee kii man kañ nii nii bu ne woon bu signé damay dëpp ñibbi waaw bu ne ko comme ni ma la ko waxee moom ni mu nekkee DG am noonu lañ nekkee moom tam noonu la nekkee suñu DG parce que parce que parce que tëgg na ma n'est-ce pas tëgg na ma man n'est-ce tëgg na ma kon tamit dañ koy ñaan moom tamit nu mu mënti jàppalee ndigal mu jàppalee ñu ko ñun ñëpp ñun <laughs> nañ jàppale ñu ñëpp mais xam nga ñoo ngi ñoo ngi woo kanji kanji laay woo sunu DG muy borom Pikine muy borom làmb ji di ko ñaanal jàmm bu baax di jox rendez-vous ñëpp le 19 rawatina suñuy soppe ñi nga xam ne ñoo nekk Dalifort Saala Saala yi ñoo leen di woo waa Njaga bi ñoo ngi leen di woo ah ñoo ngi ñoo woo ñëpp ñi nga xamante ne ñooy soppe Kaw Gourdin diaspora bi ñoo ngi leen di woo le 19 pa bi bu mu def dara Lamine Lamine yow ñaata yoon lañ lañ tiimantel micro bari na bu taxee làmb ji du yàgg dina taxaw euh, Lamine li ma ci yokk rek mooy ñii seen combat bi dama ko jagleel suñu benn jigéen muy Elisabeth sambu ku nekk xam ko ci biir seen euh, CNG de lutte bi mm-hmm. mu nekk neuf fois championne d'Afrique mm-hmm. bis boobu ñu jagleel ko ko laajuñu ko ci un franc lu dul xanaa kay ñun ñoo koy jàppale waat ci préparation pour ñëw fii ta boo ko defee moom boo ko jaglelee combat bi muy benn euh, drapeau bi yaakaar naa ni loolu mooy sargal nga encore tey ji CNG de lutte sargal nga amateur yi sargal monde sportif bi may lancé nag appel monsieur le ministre ba Diatara pour di ko wax nag euh, sëram Elisabeth Sambou bis boobu dañ koo jox drapeau bu mag fii donc ci mu ko war koo bëree ci kanamam ci teewaayam ñu bëgg vraiment moom ku ci daan mu wàcc ànd ak euh, jigéenam muy Elisabeth Sambou ñu joxe drapeau parce que Elisabeth mérité na raaya bu mag ci sama kàddu nag Elisabeth déeyoon na ma ni ma sama drapeau boobu nga ma bëgg a jagleel waxal ma ko son excellence Macky Sall pour nag mu xam ne bis boobu damaa am xew mu jàpp ci surtout nag soxnaam soxna mariam Faye Sall kon nag ma yox autorité Sénégal yëpp nañu xam ne jigéen ji nga xam ne toujours moo doon tax euh, ñuy kontaan tey jii mu nekk tey jii ci seen CNG de lutte madame Elisabeth sambu neuf fois championne d'Afrique un record jamais battu moom lay Sidi Diakhaté di jàppale ci bis bi defal ko deuxième comme deuxième deuxième drapeau defal ko drapeau am ci deuxième combat bii nga xam ne mooy deuxième grand combat bi ci diggante Kaaw Gourdin ak Ndigal mhm. donc vraiment Moustapha Kandji aussi ma koy gërëmaat di ko santaat mhm. di gërëm suma xarit Abdou Aziz Ndiaye di gërëm képp koo xam ne yaa ngi jàppale Sidi Diakhaté ci lamb ji daal mhm. di gërëm nag la presse surtout tey ji yaakaar naan tey ah jox nañ leen matière bu ngeen liggéey de jërëjëf jërëjëf kontaan nañ bon maa ngi woo ñëpp di woo sama patron Abdou Aziz Ala Ndiaye ak Baye Alé ak Masata ñoom Babacar Ndiaye yëpp maa leen woo di woo waa Alburax yëpp di woo waa Alé Papa Gueye Fall di woo suma xarit yëpp Ibou Naata sëñ Mbacke Fall ñëpp maa woo ñu préparé combat bi di woo sëñ Gërësi la Samandour Touba maa ngi woo si combat bi sëñ Xabban ñoom ñëpp maa ngi la Samandour waaw maa woo bu a di woo képp ku may jàppale si combat bi di wax ne combat bi dama si bëgg mobiliser lu rëy parce que kaaw tamit ay xale lañ mais war nañoo jógee niveau bi ñu nekk te pour ñu fiy jógee foog ñuy mobiliser di waaj mën a ñëw di bëre parce que lamb léegi du bëre daan kese quoi fa ngay waaj ànd ak say mbokk ànd ak nit ñëpp ñu mën a génn ñëw ba ñu naqar du gaa ñu naqar te dégg a teg siège bi kon nag waa géej waay gépp maa leen woo combat bi ku bëgg géej waay te géej waay gëm géej waay laa na waxuma falaa falaa maa leen woo si combat bi ñu teg loxo incha di woo nag Lamine Golo bu baax ak mbës ñu jàpp si bu baax a baax a baax. jërëjëf. di di ñaanal nag Fatma Jami ak euh, Pël suñu borom may leen jëkkër. jërëjëf loolu am na solo yàlla na ko yàlla nangu rendez-vous le 19 incha allah rabbi fii ci arène nationale 19 mars.